seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo fii ci barabu tedd bii di barabu Cheikhul Khadim di jumaay Touba di dox ab yónneen ak addiye joo xam ni suñu sëriñ suñu jigéen soxna su baax su bëgg sëriñ Touba tey setub sëriñ Touba moo ñu yónni ngir ñu indil ko teraanga ji muy am ndox ak tàndarma ak suukar ak café jox ko ci ñi nga xam ni ci sëñ bi lañuy ñuy xëy di ci gont muy muxaddimaatul xidma daayira boo xam ni euh, seen taxawaay ci yoon wi ñëpp lañ fi nekkal waaye nag euh, sëriñ Saalihu Mbàkke ginnaaw euh, lépp ci moom la ajo lépp ci moom la sosoo woon sëtub sëriñ Saalihu di soxna maam Faati Kebe moom soxna waalum sëriñ Saalihu ak alaaji Mortala Kebe mu sadix ci Kebe meer su ci yónnee nag war na kon kon nag soxna eh, waa daayira Muxaddamatul Xidma sëñ Abdoul Ahad eh, moom sëriñ Thierno Asta Walo ñu ngi lay nuyu bu baax ak sëriñ Abdoul Ahad Bousso maam Asta eh, di buntub ak sëñ Abdoul Ahad Bousso Mokhtar Fatikani ñu ngi koy nuyu bu baax ak sëñ Abdoul Ahad Bousso moom sëñ moom sëñ Abdou mi kilifa gi moom sëriñ Mokhtar Fatikani di nuyu mbooleem. Eh, waa Muxaddamatul Xidma yëpp ci turu soxna maam Fatou Kébé moom soxna waalum Serigne Saliou mu mel ni nag doxee na soxna waalo rek lay roy ndax soxna waalo ku ne gis na bërki dem bu fan yii weesu wala jamono jëla addee ji mu yónnee woon Cheikh Mamadul Muntaxa ba pare aw doxinam ci Serigne Saliou moo nekkoon di ko liggéeyal ba doon ab taalibeem di ko liggéeyal ba am gërëmam doxinu soxna maam Fatou nag mooy loolu ndax ku ne xam na ni pas-pasub taalibe la àndeek soxna waalo Euh, yàlla dogal nag ñii nekk Muxaddamatul Xidma di ay mbokkam di ay xaritam di ay càmmeñam mu ànd ak ñoom di liggéeyal sëñ ndax mbubbum sët mbubbum sëtub sëñ Tuubaa kat tegaat ci mbub ma mbubbum taalibeeb sëñ Tuubaa moo gën a wóor gën a neex te noonu la tegaate mbub mooma ca kaw muy mbubbub taalibeeb sëñ Tuubaa doon ne ko nag ci waajuram baaxoon lool bëggoon sëñ Tuubaa lool nekkoon daanukat jeex takk ci sëñ muy muy alaaji Mortaal Kebe yal na yàlla yokk yërmande ci moom kon Kébé moo ñu yónni teraanga ji jébbal ko waa Muxaddamatul Xidma jaare ci euh, euh, càmmeñam lu baax lii di sëñ Abdou Lahad bu sa maam ñu yàgg wëllërante lool mu jaare ci moom war a nag ci waa daayira Muxaddamatul Xidma kon waa daayira bi soxna maam Faty nee na mu ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñi ko ubbil bunt bii ba mu mën a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax xam na ni fii kat ku fi def dara rek sëñ Tuubaa tax nga def ko fi ndax ku ci nekk. Euh, am nga barab booy liggéeyal sëñ Tuubaa waaye yéen nag da ngeen jël barab bi nga xam ne ñëpp a ko bokk ngeen nekkal fi ñëpp di ko doxalal ñëpp ngir sëñ Tuubaa kon nag euh, sëñ Abdou euh, jëf jàngoo ko soxna Maam Faati na ko lool mu toll ci juróom fukki ndox ak ñaari keesi tàndarma ak ñaari saaku suukar ak ay café nee na xeeb na ko lool jëf ji ndax day sàkku ngërëmal sëñ Tuubaa te xam na ni fii barab la bu ñuy sàkku ngërëmal sëñ Tuubaa kon yàlla na ci dajeeg tawféexi sëñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaare ci weeru tedd yu ñu nekk weeru koor di jot li sunu nuyoo ak sunuy cant yu jógee ci Cheikh Mamadou Mountakha mi toog jataay Sal Xadim yàlla na ko fi yàlla lool te wéral ko jaar ci sëriñ Afiya bu so imaam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaay Tuubaa jaar ci kilifa yu baax yii nga xam ne ñoo nekk ci jataay bi ànd ak ñun euh, sëriñ Cheikh boroom gaawaan ñi ngi lay sant baax di la gërëm ci yónnent bi nga xam ne yónni nañ la ko ci mbir bu doonee lu baax ku jóg di ci dox ku ne sa tuyaa baa nga ca kon bu yàlla doogalee tey soxna maam Faati Kebe moom soxna waalum sëriñ saale yëkkati lu muy barkeloo ko ci jumaay Tuubaa bu la ko joxee nga indil ko ci jumaa ji yàllu na ko xam démb xam nga na lu yàllu la lu jaadu la sab teer la tamit nga war ko indi ci lu mel ne jumaay Tuubaa kon ñu ngi nuyu soxna maam Faati baax di ko sant di ko gërëm teleweesu woon lépp ndax lii du yoon wu njëkk yàgg naa sonn ci jumaa ji yàgg ci indi am waxtu wu nekk muy bàyyi xel liggéey bi kon boo demee ne ko waa day mu xadamatu xen ma ñu ngi sant bu baax di la gërëm bu baax di la ñaanal bu baax yàlla kàtt na la wéral la ba li nga yéenee liggéeyal Serigne Touba nga def ko ni lu ko sa njot ci bàkki sal xadim mu mel na nag wàcc na ndaxte boo xamante ne daayira boo xam ne Serigne Saalih moo ko sosoon ci ndigalam lañ ko sose 1994 eh, ak léegi nga xam ne kon déwén lay am fanweeri at bañ ko sose léegi nga xam ne ku ci juddu woon ku ne fi toll magum jëmm nga ñu dem ba 2005 dolli nañ ci yeneen yu bëree bëri waaye mu dem ba 2005 mu dolli ñu ci ndogu yii ci bi mu ko ci dollee tamit ak léegi lam ca waxe woon ne euh, lu mënta ñàkkal lu leen yàlla dencal lu leen sëriñ bi dencaloon dana egg fu ngeen ko fëgguwut waxtu nekk ñu ci teg bët kon nag bu ñu demee ba euh, setu sëriñ Saaliw doomi soxna Waalo te ma di leen xamal ne nag liggéey bi dafay mel ne ñoom njabootu soxna waalo gi ñoom jëmmi soxna waalo ak njabootam soxna maam Fatimi ak ay caamiñam ñu liggéey bi ñor lañ ndax dañuy yëkkati seen alal di ko ci def at mu jot duñ ñëkku leen soññi sax ña ci ña ci yor seen xam-xam tamit waxtu nekk dañuy ñëw ci jataay bi di joxe xam-xam boobu ña ca des ci waxtu nekk ñu ngi wootee di joxe xalaat lu tax liggéey bi jëm kanam comme njabootu soxna waalo boole nañ seen bopp ci liggéey bi ndax liggéey bi moom ñëpp ko bopp. ki di boole ci boppam rek yaa yaa xam ne sa alal la nga boole sa bopp waaye liggéeyum ñëpp la kon nag ti turu daayira bi ñu ngi sant ñabaru soxna wàllu gépp waaye di ko teg ci loxol soxna faa ti mi nga xam ne moo fi indi teraanga yi ngir mu tagal ñu ko ci càmmiñam yi ak waajuram wu tedd woowee di soxna wàllu di leen sant bu baax di leen gërëm ci xam ne eh, am na lu seen maam Serigne Saalix waxoon eh, dafa am genn kilifa gum doon wax ni ko na leen yittee mag ñi ñor ndax mag ñi de seen la leen ñor ku seen mbir ñor lañ koy jox kon nag jumaay Serigne Touba gi képp koo xamante ne am nga yëg-yëg ci eh, liggéey bi gis sa bopp xamal ne am na loola ci war loo war a taxawee ndax gannaaw moom dafa waxoon ku ci feeñ feeñ ba faw te boobaak léegi nag képp feeñ googee du jeex ba eh, bis penc kenn ku ci nekk mën nga ci sonn ndax liggéey bu toll nii duñ ko liggéey ba noppi bàyyi ko noonu moo tax képp koo xamante ne yaa ngi ñuy diglu wala ñuy seetaan nga xam ne muy koor wala lu dul koor muy màggal muy gàmm daayir waxtu nekk am nay war-war yu fi nekk yu fi nekk yoo xam ne day war a am ci setal ci rafetal ci xet gu neex waxtu nekk dañ koy am te ñu ciy def lu nekk rek mbokki taalibe lañ koy àndal kon soxna Maam Faty ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la loxo ci liggéey bi def mun di yàgg-yàgg ba nga xam ne boo ko inditee asakaleelu doon ci la nga la nga indiwaat ci bàkk Seexul Xadim ñi leen di sant ñi ngi leen di gërëm di ñaan yàlla lépp lu ñu ci def ñu def ci ngërëmal Seexul Xadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu